ci ñetteelu fan yéesu daldi dëkki ay jigéen ñi doon dem ci bàmmeel ba ndax dem defar néew ba nuñ ko xame woon ci seeni aada bu ñu demee fekkatul fa néewu yéesu te benn malaaka feeñu na leen ne leen lu tax ngeen di seet kuy dund ci néew yi nekkatu fi dëkki na te dem leen wax ko ay taalubem